sunu gan Ablaye Thiam wa waaleykum salaam. yow euh, président association des professionnels de régie publicitaire au Sénégal maanaam ñi nga xam def ay publicité tableau yi ci mbedd yi ak sen seen seen mbootaay gi kon euh, ak bataaxal di ñaawlu euh, li descos. di bànqaasu nguur gi nga xam ni lépp loo xam ni sanc nañ ko ci mbedd yeeg ci dëkk bi yëpp te jaarul ci yoon ñoom ñoo koy saytu lu ci opération biñu gis fan yee panneau yu bari di tableau yoyu mak yoy ngeen def ay publicité euh, lu bari danel nañ ko ngeen ni daaneel gi ak yàq gi jaaduwul. salaamaaleykum Babacar ma ngi di sant leen gërëm di rafetlu invitation bi mu permettre ñu ñu exprimer wu un peu par rapport ak li nga xamante ne moo fi xew actuellement donc comme ni nga waxé en fait depuis euh, une semaine ñu ngi vivre euh, coono yu metti yi nga xamante ne moo aaju si désencombrement bi nga xamante ne ministère de l'urbanisme moom la en euh, démarré si axe aéroport euh, Patte aéroport Almadi et ensuite la Corniche donc comme ni nga ko waxee donc ñun loolu mu doon loo xamante ne yàgg nañ koo joytu ci encombrement bi nga xamante ne am na ci voie publique bi waaye lii ñu seetlu fan yii daanaka ab yàqate la yàqate yooyu nag la ñuy ñaawlu parce que loo ci mënti dégg donte pano yi ay weñ la pano yi ay veer la pano yi matière bu mu mënti doon daanaka alal la te yàq alalu jàmbur daanaka dafa baaxul rawati na mu jógee ci nguur loolu la daal ñu koy ñaawlu bu baax a baax a baax. Mhm. pano yi tamit sañcin bi bëri na am na ci yoo xam ni ay écran la day tàkk dawalkat yi di ko jàmbat. Euh, est-ce que panneau yi tamit euh, demul ba doon ay installation euh, sauvage Faut tourner ci dëkk bi rek panneau waaw loolu Babacar mang ngi la koy firndeel nekk ñun depuis douze ans ñi ngi alerter nguur gi alerter collectivité territoriale yi alerter AGEROUTE alerter ministère de l'urbanisme bind nañ leen du ben du ñaar ñun suñu xex pour désencombrement pour ñu respecter voirie bi jema xol distanciation panneau. yi mi ngi dajé ba euh, Mbagnick Ndiaye nekkee ministre de la communication kon xam nga na donc bi si topp mooy ñii fi nekk actuellement ñom ñepp bind nañ leen wax nañ leen ba ci ministère de la communication bi nga xamantene moy bankas bi nga xamantene ne ñu ñun walum communication donc bind nañ leen ba fi may wax ak yow ni ñi ngi ci avant projet de loi pour le code de la publicité donc loolu loo moo la xeex la boo xamante ni yàgg nañ koo xeex mais nguur ñi dañu si toppul mais yéen noo leen mën a euh, bindee nguur gi euh, ngir euh, encombrement voie publique beeg lu ni mel ci wàllu panneau yi te en même temps ngeen di installer ay panneau yi nga xamante ne dañoo jegeyantoo waaw de ci loolu bu dinañ sawar tontu si loolu bu sawee ñun depuis bi ñuy commencé liggéey ba léegi passé nañu trois actes acte 1 acte 2 acte 3 acte 1, bu njëkk gouverneur yi ak préfet yi ñoo doon Acte autorisation yi acte 2, ville de Dakar a ko doon joxe si wàllum Dakaru ak yeneen ville yi nga depuis acte 3, affaire bi dafa dem ci nga maire de plein exercice yi maire de plein exercice yi amuñu woon euh, étude bu mën comment naka gérer seen territoire naka gérer mobilier urbain pour xam lan ak lan faire. Ce qu'ils nekk fan une distribution abusive des autorisations

nous, des fois duñ leen xam moom la ñuy ay clandestins parce que nous, nga xamante ne ñoo bokk suñu association ñun ñëpp métier depuis 40 ans depuis 20 ans depuis 30 ans donc une autorisation weesu na acte 3 donc pour dire simplement que nous, avons ñu ñëwee tey ñi am ñi ci ay villes 557 euh, communes Nous nañu mën a saytu liñ fi fekk est-ce que war nañ koo yokk mais yéen it euh, kenn du yéen ndax euh, ci mu fàttali sax jàppante woon ngeen fekk euh, Barthélemy Diaz maire Mermoz Sacré-Cœur ci non seulement fi ngeen di sanc ñu ne warul leen fa sanc te itam xaalis bi ngeen war a jox maire yi itam du ngeen leen ko jox ah loolu sa xalaat la rek parce que commande si foo foo ko wér mais ñun en fait ñun ñi nga ko fenn fu ci kàddu yu Barthélemy Diaz moo tax ma sàkku nga leeral oh, tontu. waa kàddu yu Barthélemy Diaz ni ñu koy kiiwee mooy dem nañu ba ci moom On ko ne dañ doon fay suñuy taxe normalement won ko suñuy autorisation peut-être que manque des des informations amna peut-être que incompréhension amna mais bañu démé ba fi may wax ak yow ni ñi ngi officier si nga xamné territoire communal am ñi ngi fay ay taxam normalement et ñi ngi implanté conformément à la loi parce que ñi nga xamanté ne ñoo sanc te teguwuñu ci yoon ñun dañoo mës a ñaawlu lolu dañ ci mës xex et dañ ko mës dénoncé

descos xamul lu nek en rek ak lu nekul parce que gis nañ ay abri bus yi nga xamantene ñu ngi ci euh, kaw telibek yeneen panneau publicitaire yi nga xamantene ñu fa ba legi te kenn laalu len waaw loolu mooy li nga xamantene ñun en tant que sénégalais ñu ngi koy ñaawlu ñi ngi ñaawlu ci suñu réew ñi japp kumba am nday ak kumba amul nday ñi ngi ñaawlu ci suñu réew état su bëggee def dara mu baña waxtaan ak ñi nga xamantene ñoy professionnel secteur bi comme je vous ai dit ñun suñu secteur lu mu ëmb dafa bari ñoom panneau publicitaire lañu gis mais si suñu biir entreprise di nga dem y a des imprimeries il y a des maçons, il y a des soudeurs métalliques, il y a des chauffeurs, il y a des afficheurs. Donc, bankas bu yato yaatu yaatu la. Ba nga xamantene tay suñ koy dindi waron nañu waxtaan ak ñun. Benen bi moy su fekkee dañuy dindi, ñi ne publicité lañuy bañ. Mais pourquoi mënuñu dindi support yépp Pourquoi ñi dindi bi les bi? Autant il y a une pollution sur les panneaux publicitaires, autant il y a une pollution euh, visuelle sur la luminosité. Donc aujourd'hui, nous, les professionnels du métier, partout dans le monde, nous faisons di jàng li nga xamantene moy suñu métier li ñu tek ni muy abribus yi yaakaar ne moy xew ci aduna bi en tout cas abribus yi am LCD yo xamantene day éblouir la voirie routière donc lolu ñun jànguñu ko. lolu ci wolof euh, moy ngay dawal wota guddi. euh lumière dugg say bët ba do gis. lolu kay sen sen sen panneau yi tam euh, mom euh, lim koy def bari na lool. waaw non Babacar dama lay leeralal foofu donc panneau yi nga xamantene ñoy panneau yi nga xamantene mom lañ wara def sur une voie routière ba dégage ak à dégagement rapide comme VDN comme autoroute comme autoroute à péage warul doon ay écran LED warul doon ay LCD tey jii nii am na ay LCD yu bari am na ay écran LED yu bari yoo xam ne dañ ko teg ci fi nga xamante ne nit ñi dañuy daw à plus de quatre-vingts kilomètres à l'heure yoon panneau yi nga xamante ne dajji nañ ko te mu nekkoon fii si corniche bi te mu nekkoon en vert donc panneau yooyu moom la ñuy waxee ay déroulant leur luminosité est calculée du éblouir te dina feeñal

ci ñaata la toll est-ce que yéen a ngi ciy génn wala génnu leen ci ñaata ngeen di fay nguur geeg maire yi. waaw ñun li ñuy fay nguur gi mooy li nga xamante ne yoon moom la wax ñuy fay nguur gi parce que ay entreprise la ñu dañuy def suñuy déclaration normale ci li nga xamante ne moom la ñuy liggéey maanaam euh, payer ngay fay les impôts les sociétés fay euh, li nga xamante ne mooy les impôts relatifs à sociale fay li nga xamantene moy la taxe publicitaire fay li nga xamantene moy la taxe occupation voie publique loolu yep ñu ngi gor gor lu diko fay. ak TVA. Wa TVA dañ koy dañ koy reversé. TVA hmm. moom dul momel kon li ngeen di fay ba mbaa di ngeen am dara. wa am dara bi duma ne duñu am dara parce que kuy liggéey da ngay bëgg am dara bon mais ñaari atangi ni, ngi nii sonn nañ sonn go xamantene tay li ñu ñu def daf ñoo dañoo dañoo mujjee yóbbu à terre comme on dit parce que deux ans ngi ni ku xam Covid loolu gisuñ ko de bu ñu la xoolee xool Bougane xool Ali Ali Mané gisuñu loolu ah. waaw xam nga Bougane moom au-delà de l'affichage te am na leneen lu muy def Ali Mané it soo ko jëlee au-delà de l'affichage am na leneen lu muy def donc ñun ñi nga xamante ne ñoo ci nekk aussi comme je vous l'ai dit mun ngeen ñu xool yaakaar ne panneau yi la mais comme je vous ai dit ñun nous sommes dans le secteur de l'imprimerie numérique donc aujourd'hui liggéey ñu kese ci panneau publicitaire totem euh, boobu nga gis ni daaneel fii si rfm euh, ñun ñoo koy defar enseigne yi nga gis si boutique yi ñun ñoo koy defar décoration de véhicule yi nga gis ñun ñoo koy defar euh, relooking agence yu bari ay banque ak lu nekk ñun ñoo koy defar ba ci pont yi nga xamante ne ñu ngi koy soo nguur gi koy soo ko defar xam naa xamu ko woon habillage en alibonde kenn si suñu ñooñ moo ko defar donc suñu domaine d' intervention dafa yaatu donc Qui une publicité bi wax outdoor publicité à chaque fois si ñu budget de communication Nous utiliser à travers nos mix de communication plusieurs supports de communication allant de la radio à la télévision à la presse écrite et à l'événementiel. Mmh. Euh, est-ce que euh, nous, ñu euh, panneau bi seen panneau yi surtout parce que remarquez nañ ki euh bi di buy il jeex y' a beaucoup d'événements qui sont organisés ak yenn yi nga xamante ñoo di ay contrats yi ngeen signé euh ñi ngeen ko signé loon est ce que ñu ngi topp seen ginnaaw wala. waaw ñu dans un premier temps dañ leen di massaw parce que xam nga image produit wala image entreprise dafa am solo donc loolu mooy li nga xamante ne euh, propriété la boo xamante ne dafa am solo lool si ñi nga xamante ne ñooy annonceurs yi ñu ngi leen di massaw di leen wax ne affaire bi du suñu coobare te yëguñu ko bañ ko waree yëg.

pour man état amul droit détruire état mënoon na jël panneau yi tranquillement jox ñu délai bu raisonnable mais clean day bi gannaaw suba la nga nañu tey tey si guddi génnee leen cent panneaux yu nek sur artère bi panneau yo xamante ay 10 tonnes la ñi ay 15 tonnes amna yo yoo mi ngi fi ba légui parce que dafa 10, ñom ci seen bopp mënuñu ko dindi loolu dafa ñaaw. pourquoi buñu len leen avertir ñëw leen dindi seen i panneaux. waaw mais Georges man je pense que ñun dañoo nek ci état bu organisé donc ñun malgré que li autorisations am habitude wax ah, dañu et révocables, mais quand nit ki da nga autorisation pour mu teg nous sommes sur la voie publique nous sommes sur le domaine public nous sommes sur la voie réclassée. d'accord nañu maintenant suñu liggéey moo aaju ñu sur la voie publique suñu activité moo aaju ci sur ci voie publique parce que partout dans la sous-région ce pays yi nga xamante et je vous rappelle que nous en tant que régisseurs nous sommes dans d'autres pays africains donc nous sommes sur la voie publique mais nous qui su fait la nous voie publique parce qu'il y a des travaux parce qu'il y a ceci il y a cela mais Bindou, nous sommes une vingtaine je vous dis. non Nous ñu on a on a vu comme tout le monde. mais nous sommes des parce que Descos avertir avertis avant euh, de nous. Descos loolu communiquer la Nous communiquer la du sommation sommation jaarul y' a y' a des voies légales administratives Yo, xamante ne dañ ko waroon utiliser. loolu loolu dëgg la dégg nañ ñenn ci yéen euh, di euh, l'am laamee ni panneau yooyu ñu dindi sax euh, nguur gi dafa bëgg jël marché bobu jox ko ñeneen ñu samp seeni tableau yu jóge bitim rew est-ce que loolu yeen am ngeen ci xibaar est-ce que lu wër la. waaw ndax nak wërul mënu guñ ko confirmer mais li ñu confirmer comme je vous ai dit dañu nekk ci secteur bi ay at yu yàgg yàgg yàgg yàgg. ca jamonoy Pape Diop JC Deco ñëwoon na fii Ndakaaru bëgg a jël même artère bi teg xaalis bu bari ci table bi Pape Diop si matam moo ko ne dafa am samay doomu réew yu ciy liggéey su fekkee dafa am ñu ma koy jox ñoom laa koy jox li tax ñi tey xel aussi gis nañ leen fii at yi passé ñiy dem ak a dikk di mesurer ak nangam donc on a toutes les raisons pour mën a am xel gu ñaaw beneen bi kumba am ndey ak kumba amul ndey bi am ci actuellement moo lay won ne am na soit parce que étranger ñaar la mooy étranger bi nekk suñu biir ak étranger bi nekk bi jógee ci biti étranger bi nekk suñu biir mooy étranger bi nga xamante ne dafa jege nguur gi wala dafa am influence wala dafa am ay entreprises yu nguur gi ñun nag ay entreprise ñi cosaanoo bitim réew tamit ñoom it ci lañu am déet waaw ñi cosaanoo bitim réew lañ ci lañu mais suñu fekkee ñoo xamante ne dañ euh, bitim réew suñu fa demee une semaine lañ fay dem def salon jàng la ñuy jàng ñëwaat seen réew nekk fi ëpp leen ci expérience gën leen maîtriser espace public bi nga xamante ne moom la ñuy utiliser toog ci seen réew créer entreprise fii je pense pas que ñooñu nga war leen buddi sànni fa la jëm jël koo xamante ne mi ngi soog a ñëw. ndax da ngeen gis ne ñooñu ngeen jort wala boog ñooñu ñi ci nekkoon installé waat ci biir réew mi. ñooñu ñan. JCDecaux bi nga. Euh, non JCDecaux dama la jox kaam parce que dañ koo dund. te à l'époque ñu ngi remercier di ko di féliciter le maire de l'époque Pape Diop avec suñu interlocuteur bi nekkoon foofu madame Diaw donc loolu dañ koo bañoon donc ñooñu nag gis nañ leen ñu ñëw parce que ñëpp xam nañ ne. justement loolooy sama laaj ndax da ngeen gis ne ñu commencé installé wu ci biir réew mi. waaw xam nga lu tax parce que euh, enseigne européen yi nga xamante ne amatuñu benn marché ñi ngi ñëw fii et plus enseigne yi di déplacé wu vers les pays plus les.

li nga xamante ne moom la ñuy ñaata la ñaata nit ñooy liggéey ci seen euh, société yi ngeen sanc est-ce que euh, euh, gaa ñiy dawal chauffeur seeg ñiy yéeg di taf. waaw est-ce que yéen leen di fay normal. ah xanaa nga laaj leen. ñun de man de man de. yéen ñi patron yi kay yaa fi toog dañ la ko laaj. man kay ba fi may wax ak yow nii. Ah, mois bi weer bi ma lay wax ak yow nii amelu ma si kenn dërëm. te samay ñooñ aussi gis dégguma kenn ku si jooy. ngeen dem reportage yi suñu atelier yi xool ndax dañoo toog bañ leen fay ñun lu mu métti métti métti nekk nañu ak ñoom dund li ñuy dund ak ñoom même nguur gi mosal nañ ko parce que bi Covid bi commencé affichage bi ngeen gisoon yëpp ñi defoon ko ci à travers le Sénégal. léegi ci dix secondes. waaw seen tawat gi. kenn ngeen ci bëgg a waxal ngir mu saafarawu. ki ñu ciy njëkk woo mooy njiitu réew mi lii nga xamante ne joxe na ko comme instruction nañ ko doxalee baaxul li nga xamante ne joxe na ko comme instruction ñoo ko ci ñoo ko ci jiitu ñoo ko gën a d'accord. jërëjëf Abdoulaye Thiam njiital euh, association euh, des professionnels de régie publicitaire euh, président de l'association des professionnels de régie publicitaire de ngi lay gërëm ci waxtaan bi. Georges